kersa ak jom daa di réer ci réewum Sénégal ndax foo toll ñu ngay waxtaane wàllum sëy moo taxit askan bi daa di ñuy joxe seeni kàddu ngir li waral li ni mel. bu ñaaw loolu bu amee tey xale yi dootuñu xam lu loolu jaxasoo la xam def lu bon wax lu ñaaw loolu loolu bu mujj ba muy mujj ci bon lay mujj. ndax ñi nga xam ne ñoo fi ñu fi jiitu ñooñu suñuy bàyyi ñun ñoonu ñoonu gën ñun ñii nooy gën suñuy doom loolu ba fi amee suñuy doom ay gën a yées mooy gën a yées ci ci réew réew réew jullit bu doon réew waaye réewum jullit moom kenn waru faa wax lu mel noonu lu gën a bon rek lay nekk gën a bon. Euh, bi parce que bu njëkk page bi dañoo xamoon huit fois dafa amoon ay page Dakar comme genre soo si soo si waree yenn yenn yenn yenn yenn affaire yi automatiquement YouTube dafay dafay censuré wala du loolu mais loolu am na loolu amul si TikTok TikTok bi gaa sax dégg naa ko ci ci waxu gars yi dégg naa am na ci ne dama la mun ko quoi des fois dafa gis ñoo xamante ni ci def def ko ci lu parce que tamit dëgg la nag gaa moom dafa day évolué on est au vingt et unième siècle xam nga waaw kon non si dara si tey ci wàll parce que produit personnel ren askan bi ñoo ngay daal di joxe ay pexe ngir ñu daal di fiy indiwaat kersa ak jom. njaboot yar leen teg leen ci yoonu siraatal mi kon ñun loolu lañ gëm parce que fii daanaka boo ko xoolee ñaari dinaa fi nekk dina bu ne am na lu ñu gëm muy musulman bi muy chrétien bi am na luñ ñu gëm kenn ku ne la nga gëm yar ci sa njaboot nga bañ mu déborder. waajur bu nekk boo tëddee doo nelaw ndax ku ci nekk yaa ngi xool wala di xalaat sa doom ci lan la nekk ndax kat YouTube bi ak toog bi ñoom amuñu ci accès moo tax ku ci ne yaa ngi xoolaat naka ngay fexe ba sa doom daal di dellu ci yàlla ndax kat nga miin rek kooku nga mën a roy